juróom-ñaari waxtu jot na sëkk ci Walf TV leeru jamono ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba noppi tey ci altine ji fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru u atum ñaari junne ak fukk ak juróom a fees ci bopp xibaar yi musiba Maba Kumba fii ci ci buntu bi ka fa jaay café eh, Baye Fall doon wax ak kenn ci ab xuloo rek mu mujjee ko bojj paak eh, ca saasa la daal di faatoo ñaari fan ñuy laaj nag askan wi duñu kenn du dem ci banque bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi taxawu eh, ñi di jëm jëflante ak banque di client yi gannaaw bu ñu leen dee noggatu saa su ne te Bessaya woo mi yor loolee noppi ci moo tax nag ba Famara Ibrahima Cissé ak ñamu àndal fas yéene altine ak talaata kenn du dem ci banque yi jëflante ak ñoom centre de santé bu Cambérène am fa faj dina sooxe bu ñu sukkandikoo ci ñu amaloon taxawaay ñaxtu tey jii ni weeru euh, juillet ba léegi jotuñu seen i payoor acte 3 wala décentralisation moo fa jaar tàmbali nañu grève bi nag waaye xamaguñu kañ lay àpp muy taxawaay ñaxtu saa suñu xëyee dinañu ko tàmbali xibaar bitim réew la ñu koy jeexalee ci biir Walf TV leeru jamono ci kanam tuuti ñu faram xibaar yi nag jàmm ci xibaar yi ci Walf TV euh, tey ci groupe Walfadjri fii ci bunt bi rek euh, Baye Fall ma fi daan jaay kafe Touba euh, faatu na sànq gannaaw bu ñu ko bojjee paaka moom Baye Fall da doon xuloo ak kenn koo xam ni ci ay client am la xamu ko sax ca coow la la ko bojjee paaka mu daal di faatu ca saasa ñu déglu ci reportage yu Ndeye Amama Si mi dellu siwaat ci mbir mi branchement ci wàllu courant yi te dëpp safara di indi ay jafe-jafe ci askan wi su tawee nag li ni mel mën a jur musiba ñuy jégalu ci élément boobu baamtuwaat ko musiba Maba Kumba ci groupe Walfadjri fii ci bunt bi ki fi daan jaay kafe ci ab kantinam Baye Fall Fatou sànq gannaaw bu ñu ko bojjee paaka ca ka mu doon jëndanteel ak jaayanteel ci xuloo bu ndaw bu dox seen diggante noonee la faatoo ñu fekk mbir mi nag tiitaange lañ ci àndal ba tey ji dañ ci teewluwaat reportage yu ndey amaama ñaari fan suba ci talaata ji tollanti ko àllarba moom la kuréel gi taxaw fas yéene aar askan wi ak jëflanteeg banque yi ni saa su ne dañ leen di noggatu ko bëgg a génn ñu téye say koppar lu bari ni ku jukki ba ca moo leen jaaxal kalaame ne ñun ca bese yawo mi saytu wàllu banque yi mu mel ni da cee ànd ak ñi noggatu askan wi néew ak a bari Famara Ibrahima si ak ñi mu àndal ndaje lañ doon amal ak taskatu xibaar yi kii di Mame Anta nduur moo ci dellusi ak pamu Modou Faye ñaari fan yoo xamante ne client yi dañuy banque seen loxo bañ a dem bank loole di dogal bi nga xamante ne kuréel bi ëmb client yeeg sociétaire yi ne ci banque yi daal nañ koy jibal Famara Ibrahima Cissé ak ki naataangoom di door xeex bi ci talaata ji. ëllëg ak gannaaw ëllëg ñaari fan ñu ngi ñaan population bi ñu bank seen loxo toog seen kër bañ a dem bank wane suñu naqar état bi xam ko banque bi xam ko parce que bu population bi toogee këram ñaari fan te banque ba ma nga fay ay salaire ma nga fay courant ma nga fay ndox ma nga fay euh, yenn charge te gisul kenn ku ñëw ne ko jaay ma wala opération bi lay def dana bàyyi la mu nekkee bu moytul ca suuf lañ jëm. ba léegi ci li ñuy ñaawlu ndaw yooyee nekk ci kuréel bi di actif daal dinañ xamle ni banque centrale lu Afrique de l'Ouest moom itam loxoom mi ngi ci yëf yi ndax mësta àddu benn yoon ci arnaque bi nga xamante ne banque yaa ngi amal ci kaw client yi la. banque centrale dafa wane par parloo ci mbir mi ñun balaa ñu ko wax moo ci waroon jóg mais li am ba am mooy ñun bu ñu yëgee mbir mi dañoo bind banque bi lettre ba ñu jël ko jébbal ko banque centrale. ñun yaakaaroon nañu sa banque centrale moo ñu njëkk woo pour wax ñu waa lii nu mu demee noonu mais ba tey may wax ak yow nii ak coow li am yëpp bañ jàpp ñu tëj ñu ci kaso bi banque centrale waxu ci dara te bu ñu wax rencontré tamit banque bi nga xam ne moom moo tàmbale mesure bi te yeneen banques yi nee nañ ñoom bu mesure bi demee ñoom it dañ koy appliqué parce que tamit client mënta génn sa banque boobu dem seen di dem seen banque ñu fayloo ko 175 500 ñoom it client buy jóge seen banque dem beneen banque danañ la fayloo même montant ni bu ñu dajeek Euh, kii nga xam ne moo jiite banque bi li mu ñu wax dafa leer mun nañu banque centrale waxul dara ci kayit bi ci yaa ma neex la ko bàyyi ñun bu ñu neexee client buy bëgg a génn ñu cinq cent mille ah comme fa lañ jëm. kuréel bi nag nga xam ne Famara Ibrahima Cissé moom ak ay natangoom ñoo ci nekk ñi ngi ñaawlu attestation d'engagement ak non engagement yi nga xamante ni dañ leen koy fayloo ci banque bi maanaam boo bëggee jóge ci banque dem ci beneen banque di nga génne lu tollook euh, téeméer ak euh, fukk ak juróom-ñaar yi junni ci suñu koppar euh, jàpp téeméer ak ñaar fukk ak juróomi junni looy génne itam ci suñu koppar nekk nag ay frais yoo xam ne dañu koy teg ci ndoddu client bi te ñoom jàpp nañ ne du dëgg du yoon. xibaar bi junjoon nañu ko moomee ci bopp xibaar yi centre de santé Cambérène am fam pàcc dina sooxe bu ñu sukkandikoo ca ña fay liggéeyee taxawaay ñaxtu bi ñu tàmbali tey ji ci altine ji ni door nañu ko waaye nag xamuñu fu muy yem ndax seeni payoor mu ngay sooxee saasu ne bi acte 3 ñëwee wàllu décentralisation ba tey moo normal collectivité locale ba ñu bokk tàmbali nañu seenu taxawaay ni app ba nag xamaguñu fu muy jeexee reportage yu Fatoumata Sey ma ñu fa demaloon ñetteelu pàcc bi ñu jagleel gox yeeg goxaat yi bëri coow coow loolu di riir ba ne naam daraame ca centre de santé bu Cambérène daal di nag dal ca kaw ña nga xam ne ñoo fay liggéeyee. acte trois bi sonal nanu sonal goo xamante ne parce que dañu sacrifier ñun agent yi dañu sacrifier kenn xamul lii lan la yow mënatoo jot heure supplémentaire mënatoo jot benn indemnité IPRES versé luñ la ko boo feebaree mën ñoo jël jël en charge mais acte trois bi ban faveur la ñu amal ñun gisuñu ko. fajkat yi nag ba léegi jotaguñu seen payoor ci li ñuy wax loolee dara waralu ko lu dul ñetteelu pàcc bi ñu jagleel gox ya goxaat yi. ñun dañu dépendre ci ville de Dakar defoon vingt ans de service ñii seize ans et plus mais mosuñu am problème mu salaire mais acte trois bi moo ñu indi léegi. bërki dem ba ma contacté kii wu maire bi daf ma wax ne kees yi dafa rouge madame Sène préparez vous que tabaski doo leen fayal mais c'est grave. ñi nga xam ne ñooy njiit yi war nañu góor góorlu bu baax pour que vraiment ñi nga xame ni mooy seen ax ak seen yelleef ñu def ko ñu def ko. bu dee nag liggéey nañu ba ba weer dee dañu war a fay nit ñi. Mm-hmm. parce que ñun tamit ñii dañu wàcc seen soxna ñii wàcc seen borom kër ñii wàcc seen doom si kër gi ñëw di liggéey si bés bu nekk suba ak ngoon di jàppale. nit ñi nekk ci Cambérène fii pour seen wàllu wér gu yaram jafe-jafe yi yemul foofu rekk ndax bii lépp centre de santé nga xam ne lu toll ci ñenn fukki junniy doomu aadama ñu ngi fiy faju see seen jumtukaay a taxu ko demee noonu. jafe-jafe yu bari yi man loolu yàgg na ko wax aussi suñu dajee suñu réunion médecin yi ak même autorité yi wax nañ ni centre yi bu ñu moytuwul day am centre bu. centre yu yu gën a yéeg yeneen centre yi wàllu ambulance bi tamit du wax nañ ko waxati ko man pour man lii du ambulance lii juste voiture de transport la heureusement que ñu ngi transporter ba léegi maladie mais ambulance dafa am lu ñu koy ay normes dafa war a am ay matériel yu nekk biir dafa war a am lu nekk biir yoo xamee ni mooy tax ñu ni ambulance liggéeykat yi nag bokk ci kër docteur fasatuñu yéene mukk ne patt ak seen jafe-jafe ndax li ko dalee ci altine ji dañoo fas yéene yokk seen loxo ci xeex bi gën cee ànd ak fulla ba kerak ñi leen di defal. li ñu bëgg. à partir d'aujourd'hui suñu. Fatoumata Seye doon àddoo ca centre de santé bu Cambérène bi tàmbali taxawaayu ñaxtu euh, saa su ne euh, ci altine ji nii fa ñu ko yemaleen xamaguñu ko ndax seeni payoor la ñu jotagul at trois ba mu fa jaaree ba tey la ñu am jafe-jafe euh, ci wàllu fayeeku beneen gox ñu waxtaane fa leneen muy ndokk juma nekkee ca département bu Gossas la leen jaaxal ñoom askan wa rawatina baykat yi mooy nag lu jëm ci engrais bi seen quota li leen nguur gi jagleel moom la ñu gisul ba yegg neexu leen ndax ne nañ ci loxoy euh, commerçant la mujje kañ ca joxoñ baaraamu tuuma nag mooy maire ba naam sax moom laalewu ci ndax dagle tey la dëkk bi waaye ka mu ko jox ak ña mu àndal la ñu joxoñ baaraamu tuuma ba ñu sonnee nag ne délégation spéciale la ñuy saaku ca seenu gox ndax maire ba ñamu fa bàyyi liggéeyaluñ leen Mamadou Matar Sarr ci leeral askan wa dëkkee ca ndog juma di gox boo xam ne mu ngi nekkee ci commune bu Patarliya ci département bu gosaas dund ay jafe-jafe yu jéggi dayoo te dara waralu ko lu dul ba léegi jotaguñu engrais ak nawet bi fi mu toll. ñoom kat nee nañu dañoo dajale seeni koppar dem ca commission ba ngir jël seen wàll waaye dañoo fekk ñu jaay ko. ñu dem sax bay laaj délégation spéciale ci commune Patarliya bii ñu bootoo. mbirum engrais moo ñu nakari mbirum engrais bi dañu ñëw di jël si engrais ñu dajale suñu kaalis kaalis bi de daanaka dem na ci au million yu teg waaw ñu dem foofu mënuñ foofu am benn pepp si fii ñu dem boo ci préfet waa ko ma suus préfet de préfet la ñu dem ñu jooytu ko suñu nakar danoo yàgg am naqar ci commune rurale Patar depuis ñetti at yi te nun fii ci commune rurale Patar la nu bokk waaye dañ noo seppi sànni nu ci àll ba bokkuñu ci daraat du dara du dara du dara lépp loo xam ne dañ ko fay joxe nun duñ ko yëg sax ci àll bi lañ ko yëgee. oto bañ ci jëkk a sarse jaay ko baana baana fii ci sunu dëkk bi lañ aw loolu moo tax ñu xam ne ñu koy commencé di séddale Patar engrais benn comité bi nga xam ne mooy jaay engrais ba ca fii am na fa ñu ma woo ni leen nag engrais bi nag jaay nañ ko ay baana baana. tey na ngeen siiwar bu soobee yàlla da ngeen gis oto yu ñëw biir paataar tey daa jël si engrais ba wallahi la ma ko doon waxee bi ñu toogee ba guddi ñaari oto ñëw sarte fa engrais ba mu fees message boobu dem ci ci commandant de brigade de gendarmerie bu ko saas bañ koy yëgee ñoom ñu def seen rondu ba jàpp oto ba oto baa ngi nii numéro baa ngi nii ñu jàpp ko oto baa nga ñu gaari ci Gossas sunu commune bii nañu ci defal délégation spéciale ndax ki nga xam ne monsieur le maire monsieur le maire de defuñu dara waaye na comme moom du toog ma nga ca ndar foofa lay liggéeyee bàyyi fi ak ñoo xam ne kii dafay muuroo musoor bu mu ñuul kii dafay gàddu tànkam kooku mun population mu ñoo nekk te wallaahi lii ma lay wax nii mag laa maa ngi sama juróom-ñett at xam naa lu nekk ci réew mi xam naa ko ñoom askanu ndog jumaa nga xam ne jamono yi ñu ngi ragal seen meññeef gi yàqu nee ñu jëwriñ ji ñu dénk wàllu mbay mi ci boppam la ñuy waxal mu jóg ci lu gaaw indi ci lii ay saafara ca département bu Salémata ñi fa nekk di amal seen kuréel di ay way waylaago ni nag dañu leen a seetaan ci lépp seen nekkin jafe-jafe yu bari lay jànkonteel kuréel gi ñu leen tegal ci biir réew mi la ñu bëgg kenn teewal leen fa bu ñuy nasaka nocc mu mën a wax seen i tawat kenn la ñuy teewlu ca ñoom Mamadou Saliou Diallo ak suñu natango Soli Brahima Dabo mu féete ca diwaan ba Salémata déjà euh, département boo xamante ni dafa enclavé dafa sori Dakar bon amul goudron amul même ci biir Salémata fii pour nga mun a déplacer wu day jafe parce que boo seetee ni euh, tey par exemple bëggoon nañ indi ay membres yu bëri mais compte tenu de la difficulté de mooy euh, problème déplacement yi yooyu def na ba bon man kese maa fi mun a teew. donc par rapport ak matériels yi maanaam ay béquilles ay chariot ay pousse pousse ay chariot yi mooy pousse pousse bon. matériel yoo xamante ne daf ñuy mun a jàppale euh, ñu mun a euh, taxaw maanaam vivre debout donc c' est des matri du matériel très important pour nous sur surtout ñun ñoo xamante ne dañoo sori dakaar sori capital bi pour nga dem ba dakaar jëndi matériel boobu dafa jafe donc c' est très important que ñu mën a am matériel boobu fii. mu njëkk ba euh, boo nekkoon handicapé fii même ci sa biir famille euh, duñ la considérer noonu. sinon problème insertion bi euh, mu ngi ci ñàkkum liggéey ñàkkum jàng loolu yëpp ay jafe-jafe yoo xamante ne dañ koy jànkoonteel. problème euh, infrastructure daf ci am mais euh, ñaan nañ ñaan nañ le maire ñaan nañ président conseil départemental ñu jàppale ñu ñu am siège mais siège boo xamante ne dafa ànd ak équipement parce que bon dañoo soxla am ay ordinateur am ay photocopieuse am matériel boo xamante ne ça va dans le sens de euh, jàppale ñu ci suñu liggéey ci biir handicapé Salémata yi yëpp Euh, de ay centaines lañ maanaam ay téeméer lañ mais ci téeméer yooyu yëpp presque benn moo ci liggéey wala ñaar donc loolu métti na mais léegi euh, am nañ yaakaar par rapport euh, ak politique gouvernement bi léegi parce que ñu ngi wax waxu jàng maanaam jàng pour ñëpp éducation universelle te loolu duñ ko mën a wax sa que ils n'ont pas pris en compte mooy ñi néew doole les handicapés surtout Janaba di gox bu nekkee ca penkub diwaanu Sédhiou askan wa fa yeewoo ne dañoo am jafe-jafe yu tar ba ndajam diine fa la ñu yëkkatee seeni i kàddu jot na sëkk barrage ba ñuy woowee Diop Kounda yëpp la fa ëpp ca ndox day wàlleeku di nangu seeni i tool yàq-yàq ya bari lool leneen lu ñu fa ñaawloon mooy ñàkkum courant lëndëm këris ga dëkk ba jógee ñu jël ci ay matuwaay suñu natango ba ñu fa nekkal Lamine Bayo la Pakao Dianaba lañ nekk dëkk boo xamante ne mu ngi côté est région Sédhiou woote dëkk bi la day xam ne dañuy xam ne euh, ku diine la askan wi fa nekkoon ñoo fa amoon dañuy diine ci kaw loolu tam jot na yëkkate ay cadeau jëmale ko nguur gi mooy jafe-jafe ñuy jànkonteel mooy ñàkkum courant boo xamante ni mu ngi leen daal ndox mu sell amuñu ko ak tamit baala jóob kundaa bi nga xam ne dafa yàqu fu ñu toll yàq na faroy loolu doon na li nga xam dañ ko mbëbët ñu woon ko kanam askan wi waa yéen mi fe nekk yéen mi fe nekk nekk ñu ngi leen bëgg a xamal ni que euh, li nga xamante mooy barrage Diop Kounda ndaa bi bokk na ci li nga xamante ne diggé yi la yoo xamante ne président de la république jot na koo diggéey bu mu fi ñëwee fii si siège yi xamaloon nañoo ni que lañu koy defar fu ñu toll ne barrage boobu yàqu na yàqu joo xamante ni lépp li nga xamante ni mooy mbir mu liggéey gi daf ko jaxase ñu boole ci li nga xamante mooy mbir mu courant bi courant fu ñu toll ni yoonu pakaaw bis bu ne ñu ngi koy mbëbët amuñu ko ay dëkk yu mag fa nekk ay dëkk yu diine te fu ñu toll nii courant soo xoolee ba xool courant ku ko amul rek dafa mel ni ay jafe-jafe la ci sa dund bi kon fu ñu toll ñuy xamal ni dañ koo bëgg a am ngir yombal suñu dikk boobu. waaw li nga xamante mooy barrage Diobkounda bi dafa protégé woon ay faro fu ñu toll nii faro yooyu ndox bi dafay dugg du ndox boo xamante ne ndoxu xorom la. ndox xorom su fi ñëwee xam nga faro kenn liggéeyatu li ñuy wax ni xeexu ndóol bi xeex xiif gi kenn mënatu ko. te li nga xamante ne bokk na ci liggéey ñu ngi ñaan fuñ ñu nii li nga xamante ñoo ko mën a defal ñu defal ko ngir askan yu mun cee nooyi mun lañ ne fu ñu toll nii fii nga xamante ne mooy pakaaw jànna ba muy feneen ay kër diine la ñu waaye fu ñu toll nii nguur gi daal da leen fàtte di ci lu bëre da koy dafay feeñ ci seen ziyaare dafay feeñ ci seen euh, taxawaay diine gi mooy tax ñi mbëbët saa su ne si seen gàmmo yu mel noonu di ñaan nguur gi mu jàppale leen si seen jafe ñu jànkonteel Sédhiou Walf Fadjri rajo TV Lamine Badji Lamine Bayo dañuy li ci wàllu politique bu jógee ci partem fas yéene dem bu APR mooy Djibo Ka mi yor URD waa APR wax ne nag yokk moo gën wàññi naam sax ñi féete ci kujje gi nii Djibo Ka amul ay militants yu sakkan yu mu mën a yóbbul kenn reportage yu Amadou Limbaye la. jubal nañ tika takk ay kaakaam ak ay bagaasam fas yéenee dem jàppale njiitu réew mi Macky Sall Ousmane Faye bokk ci front patriotique pour la défense de la République daal di xam ne lii bettul kenn ndax kat jikkoog boroom ba ci paax. jiboka ku xool paasaasam cursusam ci war rek la nga ko xam ñun sax bi muy nekk ci ñun kenn wóoluwu ko ci xamoon nañ ni day dem xanaa kay xamoon nañ ni comprendre nañ dafay ñëw ci ñun kay pour xuuxal Macky Sall. parce que ku ko gisee foofu waa ne nag man li ma jaaxal nag sama problème sax du Djibo Ka mooy Macky Sall li ma jaaxal mooy nan lay def ba nekk ak waa Benno Bokk Benno Bokk Yaakaar yi nu mu fay toogee. waa APR ñoom ñu ngi tertu tey tatagal kii fi nekkoon directeur cabinet bu président Léopold Sédar Senghor. Euh, vraiment kontaan nañ le fait que mu bàyyi ñële di wax ah lépp loo la donc partenaire bu Euh, soit dafay ñëw ci APR say ci ànd ak président la République wala mun bokk ci mouvance présidentielle benn bokk yaakaar mais loolu mun na am nit parti bi wala mouvance bi lu rëy parce que moom ak ay nit yu mu àndal hein quand même quelle que soit leur importance dañuy yokk euh, euh, donc mbooloo mi naam sax ci politique dañuy xamle naan yokk moo gën wàññi loolee nag jiboka mi jiite URD xam na ko ndax kat takk na ay bagaasam fas yéene bàyyi bi jiitu réew mi Macky Sall ci yeneen i xibaar ba tey mu soxal wàllu politique Famara Ibrahima eh, ba Dabo yëkkati ay kàddoom ni nag nguurug Macky Sall ak kuréelam ngi mu àndal di Benno Bokk Yaakaar jafe-jafe askan wi amul lenn loo xam ni indi nañu ko ci saafara la ñu doon xaar ba tey jii eh, ñu nga koy xaar la ñu laajoon nit ba tey amul lenn luñ leen ci dollil ndaje ak taskatu xibaar yi ñu amaloon as ña lañ ci dénkoon kàddu eh, suñu nattango bi di Alassane Diallo moo ñu ko taatanal ca Walf FM ci wàllu politique ba tey euh, front bi nga xam ne nag Mamadou Diop Decroix la ñu àndal euh, fa yéene amal ay doxu ñaxtu balaa yàgg wàcc ni dañuy jëflante ak nguuru Macky Sall ak ñi mu àndal nappatu bi mu dëkkeek ku jegi euh, dootuñu ko seetaan te balaa yàgg Karim Wade dinañ jëf seen kéemtalaay kàttan ba mu génn ci kaso bi ca géej waaye lañ doon amalee ab meeting Théodore Semedo moo ciy dellu si. opposition bi mu ngi wéyal xeexam ngir ñu génnee Karim Wade ci kaso bi waaye tamit ngir Macky Sall jóge ci bopp réew bi yenn ci responsable booloo ci turu Fonds patriotique pour la défense de la République gannaaw bi nga xam ne dañ doon tàmmali caravane ci juróomi bokk moomeel yi nga xam ne ñoo ëmb département bu waaye ñoom sàkku nañ seen militant daal di mobiliser wu ngir xeex nguuru Macky Sall fas yéene ko tàmmale ci jour verdict procès Karim Wade bi nga xam ne Cour war na ko joxe ba atum 2017. wala mu génne ko sida xam ngeen ni le 19 bi le 19 août am nañu benn marche bu ñuy pour demander la libération de Karim Meïssa Wade et tous les am na aussi le 21 benn meeting aussi bu am solo bu ñuy def pour aussi la libération de Meïssa euh, de Karim Meïssa Wade. il faut que ñun ñu mobiliser wu baax a baax. yaakaar naa ne le 20 Karim Wade dina ñibbi mooy heure. bu fa ñibbee xeex bi bu fa ñibbi wutit xeex bi jeexul li ci def mooy am na xeex yu bare bare bare yu ñu xeex ci réew mi dañu ko war a organiser muy imam muy yalamaar muy ñeneen Macky Sall du dem ku ne xam na am na benn pétition boo xam ne dañu ne dañu koy signé Abdoulaye Daouda Diallo du organiser sunuy élection ñi nga xam ne ñooy plateforme de mouvements karimistes yi nga xam ne ñoo nekk ci département de Guédiawaye wax nañ ni ki mel nee na jàpp bi ñu def Karim Wade méngoowul ak yoon te ñu ngi wax ne fu mu toll nii ñoom pare nañ lépp ngir jàmbaloo nguur gi bi nga xamee ne fu mu toll nii day jalgati yoon kese. ba ñu commencé atte ba léegi amul fenn fu ñu jox ndam Karim Wade lu mu dugal ñu faagal ko sànni suñu xel moo dal ci ñoom mais nag ginnaaw Nations Unies wax na ci CEDEAO wax na ci. damay wax président Macky Sall benn bi na respecté moom la mu waxoon. damay def juróomi at 2017 na bàyyi Karim Wade su ko deful lu mu si góobee moo koy gàtt ay bës yu bëree ngi nii opposition yi bokk ci front patriotique pour la défense de la république ñu ngi wër bokk moomeel yi ngir jéem a ñaax askan bi ñu lëkkaloo seen doole ngir ñu bàyyi Karim Wade bi nga xam ne nekk si responsable PDS te nekkoon jëwrin ci nguuru laay Wade bi ñu jàpp ne dafa luubal alal bu nga xam ne ne moomu ko ki da njokko yéen fii ci diwaanu Géejawaay Théodore Semido wa Théodore Semedo bokk na ci li ñu junj ci bopp xibaar yi muy musiba bi am ci buntu groupe Walfadjri eh, ki fa daan jaay café ci kantinam Baye Fall doon xuloo ak kenn ca ña mu doon jëndante ka jaayanteel kookee génne paaka eh, bojj ko ko ginnaaw bu ñu xeexee noonee la fàttoo ci saasa ndey amaama si mooy dellu siwaat ci mbir mi xew tey ci ci ngoon ab xuloo bu ñàkk solo moo jur musiba naaru laay ca rue Front de Terre benn ngóor bu ñuy wooyee bay Fall la benn waay rey ginnaaw bu ñu doon xeex li ni mel nag amee ci altine ci ngoon ca buntu Walfadjri te ki ñu rey doon fa jaayee kafe suñu sukkandiku ci ñenn ñu ko fekkee bili xuloo mi ngi tàmbalee ci gawo bi ci diggante ñoom ñaax ki ko faat moo fa ñëwoon di ko xamal ni warul jaayee kafe ci buntu bërëbu Walfadjri li ni mel tax ba ñu jàppante ba nit yi ñëw mu mel ni li mel neexul benn yoon waa ji ñu teg ci ñetti fan ci altine bi mu dellusiwaat ngir fayu ca la indaale ab paaka ginnaaw bu ñu jàppante waatee mu mujj ko kaa jam ci xool gaañu gaañu bu metti loolu deret bi bëri ba Baye Fall mujjee ñàkk bakkanam balaa sax ñi koy wàllu di yegg Baye Fall di jaaykatu café ak beñe moom nekkoon na ci buntu walfajri ci ay at yu bëri ginnaaw ba ñii di liggéeyee ci bile group ak dëkkandoo yi yëgee ñoomee ñu ñëw di wax lépp lu baax lu nu xamoon ci bile waay di xamal ni nit ku baax la woon te it liggéeykat la woon loole sax moo tax woon ba kii di Mass invité woon ko ci rubrique bi di gëm sa bopp te ñu koy amal ci émission njoganal fii ci Walf TV ci bile rubrique mu fësalaat gëm bu mu gëm boppam ak mbëbët yu bëri yi mu am ci ëllëgam mu mel ni lu ñu naan jaam ak pexeem yàlla ak dogalam kii di Baye fal fekkee baax ca Touba moom jotoon naa ci soxna ci lu yàggu dara mu dëddu bàyyi ak tiis njabootam ay xaritam ak soxnaam xanaa di ko ñaanal lekk suuf oyof ci kawam xanaa delluwaat di ko ñaanal lekk suuf oyof ci kawam damay bañ ku ma yàpp yàlla na suuf ci kaw moom Baye Fall doon jaay fii café ci buntu groupe Walfadjri ci kantinam ah, ba mu fa nekkee tey ji la fi doon jàppante ak kenn samedi la woon ba mu dellu si waatee nag ci ay xuloo rek ci la ko bojjee paaka nu ne la faatu laata wàllu yi ah, di ñëw sapeur pompe yi ak takk der yi ñu jàll ci beneen xibaar mu soxal nag askan wa dëkkee Mbour ca gox bu ñuy wax onkat sànc foofa jafe-jafe la ñuy jànkonteel ni ndox mi nangu na seen i kar nangu seen lépp yëpp te kenn taxawu leen dafa mel ni ñu nekk ci jafe-jafe la sawar di leen seetaan Thierno Daaf ci reportage. li leen kilifa yi ngànk dëkk bi wàllu siwul ci kanamu ndox mu bari mi askan wi yeewoo ci quartier onkat sanc bu mbuur baare nañu yoon bi ba tax waa polis ñëw wone seeni maniin actuellement nii nag ñu ngi leen di patienter bu dee ñëw nañu ah ñu dindi barrage ñu gën dindi barrage bi bu dee ñëwuñu nag ah bu suba encore ñu defaat ko ci parce que fu mu ni dañoo sonn ñu mobiliser wu baare tali bi parce que bu ñu baal tali bi ah duñu xam sa solution bu ñuy def ah ba waa sapeur ñëw oubien waa sapeur pompier ñëw oubien waa mairie ñëw oubien waa police ñëw dem nañu fu ne dem nañu mairie dem nañu préfecture dem nañu dem nañu sapeur leneen li askan wi di ñaawlu moo di xàjj seen bi mairie bi indi jamono ji ñuy defar assainissement bi ci biir quartier yi. te li ñu sonal nag mooy tali bi rek nag tali bi rek nag moo ñu sonal ndax ba ñu amee tali ba ñu amee suuf si avant tali bi boobu daaw ñu inondé nii mais dañ dañ fi def ay canalisation foos yee ñu fa def jëriñu ñu dara dañ ñoo yokkal dañ ñoo yokkal mairie bi defaruñu dañ ñoo dañ ñoo yàqal. dégg nga mairie bi defaruñu dañoo ñoo yàqal ndax tali bi ba mu fi nekkutee ndox mi da daan dem normalement. mairie dañoo seetaan dañoo seetaan suñu tali bi boobu ba léegi bu ñu ko defaree ba léegi ah problème lañu rencontré. li mu jur nag jamono ji ci gis-gisu askan wi moo di gone yi yeewoo ci on sant sanc yëpp ñu ngi amee ay feebar yu baree bari. actuellement ni suñu xale ñu ngi feebar kër goo dugg am na xale yu sibur kër goo dugg am na xale yu sibur ndax ndox mi. parce que xet bi baaxul ci ñiy dem baaxul ci ñuy dugg ci ndox mi. ñoom police ñoo ñëw dindi barrage bi suñ ko dindiwul suba ñu delloo ko ja parce que sonn nañu xale yaa ngi si bëru mag ñaa ngi si bëru ndaw yaa ngi si bëru dégg nga dañuy mënuñoo jàngi mënuñoo génn ñoo dem lenn. ONCAR sanc quartier la bu nekk ci peggu mbuur ci penku mi te mu ngi nekk ci yoonu Kaolack bi mbuur géej rajo télévision Walfadjri Thierno Daaf. Thierno Daaf ci jamono ji jën kenn mënu koo gis wala la ñuy gisakus néew dina cher ba jéggi dayoo bu ñu sukkandikoo ah, ci aw bat yi ma ñu demaloon ca quai de pêche marché Soumbédioune ah, ñamu fa fekk jëndkat ya gannaaw bu ñu ñaawloo ah, jën yeeg na muy chéré ñi di mareyeur yeeg nappkat yi ni li ko waral nak mooy géej gi dañu ko jaay ba mu jeex tàkk la ñuy yorakus néew dañ ciy bëgg lu ñu yóbbu seen njaboot ñu teewlu reportage mu awa bat yi. Jalla fay 25000. ah Jalla fay 25000. 25000 bi ñu fay fële 25000 mat na ko ñaar. ci marché jën bu Soumbédioune ay waxaale yu dul jeex lañu fa nemmeeku li ni mel nag li ko waral mooy coppite bi am si njëgu jën bi kii di président mareyeur yi nag dëggal na li ni mel. ñëpp xam na nawet liggéey day metti surtout liggéeyu mool waaw mën na jóg ngelaw li dàq ko mën na xiin tamit mu dàq ko. mën na xëy tamit mu dem biir géej tàmpe tamit fekk ko fa ngelaw garañ bi jóg si gannaawam waaw loolu yëpp moo tax napp bi xaw a métti daal parce que xam nañ ne jën euh, population bi noo ko soxla. ay clients yi ñëwoon jënd si jën ñoom nemmeeku nañ li ni mel waaye nag ñu ngi koy ñaawlu loolu. marché bi daal léegi nag bu dee wax dëgg rek metti na ndax euh, fii poos yi toll daal ak li ne ci marché bi liñ koy jaayee ah na lool ci euh, ñu mën cee jot waaw. jën wi nag moom moo ci raw. soo seetee kii ça ne t'amène pas 10 jours quoi. donc ça te revient à 15 000 jours donc euh, soo seetee nga dem au jour le jour moo moo gën quoi. ñi di nappkat yi ñoom nag ñu ngi joxoñ baaraam tuuma ñi nga xam ne ñooy bato yi mag yi. jën fu mu toll nii amul ndax bato yi bato yi fu mu toll nii ñoo yàq géej fan yii rek programme yi ñuy gëtee rek 15 kilomètres noo ngay gisee ay jën yu tëmb dara waraloo ko loolu bato yi. bu ñu ñëwee dañuy fekk bato yi dañ fiy bëri guddi gi dañuy wàcc bu fii staatu île bon kon donc géej gi yëpp dañ ko jaay ñun mool yi actuellement nii mënuñu am ñaar dërëm. saa su nawet jotee li nga xam ne mooy jën dafay jafe gis loolu ci marché li ni mel nag askan bi ñaawlu nañ ko loolu ndax jamono ji foog nga génnee xaalis gu takk boo bëggee am ceebu jën bu baax ci waxtu añ. fiya moo ko fi ñuy jeexalee xibaar yi Awa Badji ci Walf TV leeru jamono Pierre Edouard fay fete woon ci réalisation mooy dellu si waat juróom-ñetti waxtu ci xibaar yi yaatal ko ay Aïssatou Diagne fete woon ci wàllu régie bi Aminata ma madame mbay ci maquillage bi jër ngeen jëf ci ànd beeg programme leeru jamono yàlla mi borom jàmm yàlla ñu may ngoonu jàmm jërë ngeen jëf